mbokk téléspectateur Equivox TV ñu am mbégte ak bànneex di jàkkaarloo ak yéen saa su nekk nee naa leen nag nii lay demee rek ñu daal di dugaate ci journal de ren ma ciy ànd ak Babacar Babacar nuyu naa la. maa ngi lay fay soxna Ami. yaa ngi am jàmm. waaw maa ngi sant Babacar tey sañ nga de sa jaune. <laughs> dégg nga Babacar da nga jaune tey. olof di ko ah, <laughs> muy muy mboq. waaw mais sa robe rafet na macha allah. macha mm, allah waaw tey dama def jaune ji jaune waaw waaw waaw moom jongoma pure kay. 100 mm. pour cent jongoma. kon baax kontaane naa la bu baax a baax. d' accord chers téléspectateurs bu fekkee rek baax ñu dem seetaan revue des titres daal di dellusiwaat. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 29 janvier 2021 dañ ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy doorati ko yëglikaay ba tey fa mu xëy ñëw nag ci ñaar ñoo xam ne nii kii jamono jamono ji ñuy wax ak yéen moom mooy le roi des arènes ka ca des jamono yële passé nekkoon na ko fi muy Balla Gaye numéro 2 ak ka nga xam ne moo di Modou Lo ñoom ñaar nag ku ci nekk daal moo xam Pikine la wala muy Fass dugg nga fa lëmbe fa def fa la la neex loolu yëglikaay bi moo xëy ñëw tey dina ko wax yëglikaay bi na kii di ki nga xam ne nii moom moom moo di Balla Gaye Pikine daal ba fa duggee ci wàllum làmb ak bëre lam fa def moom moo nga fa tege ni tege ndax nag sunu làmb jàpp na ne juróom benn victoire la am ci ñaari combat yoo xam ne donc la ko fa ñàkk wala boog moom la fa ñàkk muy yemu jàmmarloo ka nga xam ne mu am a seen waaye bu dul loolu moom balla daal biir pikin na ko fa neex lafa fa doxantoo sunu làmb xëy ñëw tey def boobu xayma yemu ca faas itam lu mel noonu la fa ki nekk roi des arènes ci làmb ji léegi def muy Modou ñeenti combat jot def ak waa Fass daal kaat ya yëpp da koo gagné moom itam daal daa dugg faas jaxasa leen lëmbaaji leen sunu làmb xëy ñëw tey wax ñu lu mel ni ki noonu ba tey yëglikaay bi nga xam ne nii moom moo di sunu làmb ñëw na ci mbër moo xam ne moom li olof naan tontu du forox moom la xëy def tey muy ama neex bu tëngéej ginnaaw démb bi Moussa Ndoye génne di ko xamal ne maag yow dix mille francs ma bëre ak yow ama neex nag ne na ko yaa ko très neex jàppal yow Moussa Ndoye ne bu nu bëree bu ma la dooree da nga daanu te saa yu ma la jàppee combat ba day daal di jeex ndax du ma sa morom yëglikaay baa xëy ñëw tey ki noonu leneen loo xam ne nii moom yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci muy ñaar ñoo xam ne yëglikaay bi la mu jàpp ab mbëkkante la gis war a dox ci diggante ka nga xam ne moom moo di Sam Mbaye di promoteur Sam Production ak Gaston Mbengue yëglikaay baa wax nu ko parce que la tax mooy datu la 4 ba nga xam ne Gaston dafay xam le ne daal ca la bëgg a ki nga xam ne moo di Eumeu Sène ak Lac de Guiers date booba ni ko ki nga xam ne nii moo di Sam Mbaye moo ko jàpp war caa tëgg Coly Faye numéro 2 ak général bu Fass muy la 4 avril 2021 sunu làmb xëy ñëw tey dinu wax lu mel ni ki noonu kii moom bu fekkente ne làmb ji maanaam mënta dox fii Sénégal wala ñu tëgg fi li olof di wax rek ku amul yaay namp maam jamaykee moom loolu la xam moo tax mu meeb ay dëbësam ak ki déebam ak ki déeba déebam daal di daal wutali fa nga xam ne moo di réewum Gàmbi nga xam ne nii daal fa la fekk baax wala boog am ca ci genn wàllam loo xam ne nii fekk na fa baax jamaykee daal wutali na Gàmbi le 28 mars nag 2021 bii nu ne daal ca la moom moo di France yëg yëglikaay bi daal xëy na tey wax ñu lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne ni moom yëglikaay bi xëy na ñëw ci wala boog démarrage saison bi nga xam ne nii daal maanaam mooy bu làmb ji mel ni ki nag fi mu nekk nii day soo bëggee dégg-dëgg ah maanaam CNC joxe na ndigalal daal ñu renouveler licence ya xanaa kon daal loo ci mën a dégg daal ab waajal mooy waaj a am yëglikaay baa xëy ñëw tey dina ko wax leneen loo xam ne nii yëglikaay bi wax nanu ko muy Bira Sène nga xam ne moo jiite lamb ji te itam nag balaa moo jël place Alioune Sarr lambi Kaolack moo ko jiite woon maanaam CRC ba mu mel ni que nag fi mu nekk nii place am ba nga xam ne nii moom la fa bàyyi woon daa am daa mel ni léegi nag am na ku jël bang ba toog ca muy nga xam ne nii moom mooy Maam Kor Fay yëglikaay bi xëy na ñu xamal ne daal CRC ba nga xam ne moo nekk ca Kaolack léegi nag moom moo ko jiite jël place ka nga xam ne nii moom moo di Bira ma fa nekkoon ba jamono ji di jiite jooju lamb feneen foo xam ne dañ fay dem muy record sport buñ moom garga mboosa lañ fay fekk ak ub écrém dóor dóoraat maanaam yëglikaay ba xayma juróomi at yi ñu génne daal dóor dóoraat boo bëggee dégg dëgg moom ah loo ci mënta gis seeni mbir daal daa mel ne nag ah baax na de ndax yëglikaay bi nee na cinquante sept victoire dajale nañ ko quarante en un défaite mel ni ki daal boo xoolee moom maanaam na ñuy doxe daa mel ni daal ah xaw naa baax de wala baax na moo tax kaay bi jàpp na ni kii di garga moom di tête de ba maanaam mention passable lan ko defal maanaam daa mel ni kon moom itam daal am taxawaayam loo ci mënti dégg baax na sunu làmb xayma leen daal ci cinquante huit pour cent de réussite moom dóor dóoraat mel ni ki dóor dóoraat googa duñ ko sori ndax beneen xale ngi nii boo xam ne yaakaar naa ne fala ne muy Cheikh Tidiane Niang mi nga xam ne daal yëglikaay bi ne la mu teg bëtam daal fi mu nekk nii mooy sixième maanaam maanaam daal beneen succès yoo xam ne nii daal day tegaloo ginnaaw bi nga xam ne nii daal mu ngi wane boppam ci yoo xam ne nii lamb la rawatina avec frappe bi parce que nag ku ne xam ne ne diggante mag ndongolo yëglikaay bi ne nañu taxaw na moom Cheikh Tidiane Niang nag cinq victoire jot na koo am ci la nga xam ne nii moom moo di lamb ji ci palmarèsam yëglikaay bi record a xëy ñëw tey dina ko wax waaye bu ñu demee fa nga xam ne nii nag moom moo di ci Equivox moom lan fay fekk mooy ngénteel Sa Thiès démb ca golf mel ni ki nag liir ba daal góor la kam ko tudde moo di magam di Balla gay numéro 2 mel ni ki loolu moom démb mu nga xew fa nga xam ne nii moom moo doon ca golf mu mel ni ki nag kon hélas li ñuy wax rek diw baax nag joo dégg na ko ay mbokkam wax waaye am sa doom hélas tudde ko sa mag defe naa loolu moom dara newu ci te dana gën a dëgëral mbokk gëna defar kon gaa yi li ñuy wax tey daal ci àjjuma ji mooy ku am mbokk na ko fonk te sàmm ko ndax nag mbokk olof a ko wax day xeq waaye du wex mbokk du weex dafay xeq comme ni ko Babacar waxee rek ka nag li nga wax noonu la ndax boo dëkkee ak nit ki bu waxul sa mbaax ku jóge ca biti ñoo wax sa mbaax féministe nga loolu la olof wax mhm. ah du du wóor nag li am solo daal mooy diw baax na dañ ne ndax mhm. mbokk yaa ko wax mhm. olof ne mbay sa wewu tànk maanaam defe naa boo baaxee ba muy dëgg say mbokk koy njëkk a xam après nag ñu ñaan bu keroogee mu wal dem ba ci biti waaw defe naa kon mooy li nga xam ne daal moom moo am démb ci jël sa mag joo boo xam ne rek bàyyi tudde ko sa doom defe naa ci defaru mbokkul te ne nañ ku la tudde doom ku la yóbbu màkka ku la may jabar ak ku la gasalub teen ñi moom bañuñu la te muy dëgg muy rafet mhm. voilà Babacar euh, ñu daal di ko dooree rek journal bi di suñu làmb ñu daal di dikk ak ñun ci euh, ñaari euh, mbër yu mag yi muy Balla Gaye 2 ak kii di Modou ku nekk rek fa nga mëne mu daal di ko décortiquer muy Pikine kii di Balla Gaye moom moo fa mëne Modou Lo moom mi ngay brûler face grillé mooy taal. waaw fi mu nekk nii ko waaw am na solo. <laughs> léegi su ma ñëwee nag ci ñaar ñii muy Balla ak Modou mhm. ñaar ñi dèjà dañu am euh, maanaam ay nit lañ yoo xam ne ci làmb tey ay royukaay lañ muy Modou muy Balla Gaye parce que boo xoolee Balla mu ngi ñëw 2005 Modou ñëw mais tey ñoom ñaar ku ci ne nekk dégg nga roi des arènes bokk nañ tey ci mbër gën a populaire Sénégal bokk ci mbër yi gën a seer bokk ci mbër nga xam ne seen palmarès macha allah loolu nag liggéey moo koy maye defe naa kon Balla Gaye bu duggee Pikine juróom benn yoon am fa ñaari vic ñeenti victoire ak la nga xam ne mooy ñaari défaite Eumeu Sène daan ko fa defe naa kon moom itam ah duggam yëpp Pikine jig na ko lool mhm. yaa ngi dégg parce que ko fa daan magam la war na ko mën a daan ci làmb daan ko deux fois waaye terewul wane na fa boppam ndax boo jëlee ay bàcc seeraas ay Boy Sey ay Coly ndem si yàlla Tyson ñëpp a daan mhm. yaa ngi dégg boo ñëwee si mhm. dafa daan ñam fa bëreel loolu tamit moo lay wan ne ñoom ku ci ne la ngay def rek jox ngoo cër mais làmb nag moo tëddee noonu mhm. ndax ku ne xam ne ne euh, digganteem ak Papa Sow ñëpp a ngi koy fàttaliku Modou Lo Papa Sow ca tournoi Gaston Mbengue Kalaf ba digganteem ak Balla Diouf xam nga digganteem ak Gris Bordeaux combat bu njëkk ba yooyu yëpp di ay bés yoo xam ne daal macha allah loolu nag mooy làmba ah. loolu mooy sport waaw waaw dëgg la Babacar mhm. bu ñu jógee foofu ñu dem ci ki nga xam ne moo di Moussa Ndoye mhm. démb daal na génn mhm. wax rek ne bu ñu ko joxee am a neex moom 10 000 rek doy na ko pour mu bëreeg moom daan ko tey nag kii di am a neex moo ñëw rek daal di wax Moussa woo nga lébu ci lakkum jën waaw waaw daal bu ko jàppee moom itam mhm. nam koy def dina ñaari lébu lañ de dëkk tefesu Tëngéej muy Amaneex comme Moussa noonu na dix mille mu bëree Amaneex ah, <laughs> mm. fi nga xam ne dégg nañ ko ci mu doon ko démarché yàlla na mbëri raisonnable ba mu mën leen tëgg parce tamit fi mu nii ñoom bëree kese moo war ci ñoom ah mm. te itam defe naa ñoom ñaar ku ci ne comme na ma ko waxee démb rek amut ci ñoom ñaar ku mën a bañ sa morom mm. ba teg ko fenn ñiy dund làmb xam làmb di la ko nangul kon defe naa làmb moo leen boole te muy dëgg mm-hmm. ñu daal di ñëw ci ñaari promoteurs yi muy Gaston Mbengue ak yoo xam ne dat yi dañoo daje loolu loo ci mën a wax waaw seega fii dafa jara indi leeral parce que mm-hmm. Sam daaw mm-hmm. la taxawaloon qualifié ak général bu Fass bëggoon ko tëggal ak 4 avril après mbas mi ñëw làmb ja dàqu yaa ngi dégg saison boobu bëree waa surtout ba ren ji saison bi ubbiwaat bëri bëreeguñu mhm. xam naa tamit la nekkoon yéeneem daaw mooy la car avril boobu mu bëggoon tëgg ren tamit ci la bëggoon tëggaat mhm. yaa ngi dégg Gaston Mbengue itam dégg nañ ko bi mu taxawlee Eumeu Sène ak de Guiers fan yi mu génn ne bëgg na tëgg bëgg na ko tëgg la 4 avril bu dee saison bi ubbi na loolu nag dama naan foofu problème mënu fa am parce que xamul dox problème mënu fa am CNC moom moo yor ji di ko doxal ay date la date ya nañ ko joxee pour man noonu lañ koy suivre à la lettre su ko defee foofu yaakaar naa problème waru fan a mën a a am quoi parce que Gaston defe naane ne doomam la jarbaatam la fooguma ne dina xëccoo ak moom dara saam itam nekk na xale boo xam ne wax dëgg yàlla seen bu ambitieux la ñëw ci làmb di jéem a def ay journée yoo xam ne te bu mu ci indi rek mu neex kon yaakaar naa foofu daal gisuma ne problème mën na faa am waaw waaw Babacar euh, toog xaar bi yàgg torop ba tey rek làmb ji tijjiwul ki nga xam ne moo di jamaïcain nag daal dina jël combat yi nga xam ne tëgg na ko rek yóbbu ko fële ca France muy euh, leket baara voilà France le 28 quoi <laughs> maanaam euh, France ak leket baara mel mbër mi moo tudd France waaw Gambie la ko bëgg a tëggee mhm. ami ah ñaari mbër ñaari mbër ay mbëru ay doomu Gambie lañ ah mhm. muy France di leket baara baara benn dëkk la bu ne ca Gambie. Mhm. fi ñuy wax baara France mbër mi France la tuddee boppam. Ah muy jamaykee suñu rakk suñu frère ñu koy nuyu di ko ziar di suñu xarit na Gambie ndax mhm. bu baax a baax kon defe naa tey bu toogee fii xam ne fii kat mbir yi mhm. mu jéem uti feneen fu mu dem muy Gambie defe naa Gambie ak Sénégal benn la te daaw ku ne gis na lam fa def ci diggante Baye Mandione ak xoyantaan defe naa kon moom fa muy dem du terrain bu mu la ba nga xam ne na ko ñu koy ñaanal yàlla rek le 28 mars boobu yàlla nañ ci yegg mu tëgg ko te génn ci ndam barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que jamaykee dafa bokk ci ñun quoi. dëgg la waa kon kay bu ñu renouveler licence moom la cay tege wa mooy saison bi ubbi na mhm. bu ubbee nag ñu xool nu ñu koy def ba bëree ko rek waaye saison moom daa yaakaar ne mhm. ñàkk ubbi gi moom du wóor mhm. waaye man nag fi mu nekk nii damaa dem ba amatu amatuma yaakaar ci ni dina ubbi man amatuma ci yaakaar ah. soo amee itam daf may bett dëgg la waaw ba tey rek euh, ñu dem fële ca Kaolack ki nga xam ne rek moo di euh, Mamkor Faye moom moo nekk euh, président CRG. moo remplacé. waaw moo remplacé nga xam ne moo di Bira Sène. voilà waaw Mamkor Faye ami foofu sa dëkk la Kaolack. seen bi dëkk la. Kaolack maa kon Mamkor ñu koy ñaanal yàlla rek ca xorom nga ca xorom sax tànkam loolu yàlla na ko jig. <laughs> yàlla na ci am ay succès def fa lu fa Bira Sène deful woon.

tey defe naa ne Zos dem na ba taxaw ñoom ñu continuer di liggéey mm. ba tey defe naa bu ñu amee résultat bu muy nekk seen i entraîneur moo lay wan ne kon ñoom it ñu ngi liggéey Garga Mbossé tamit actuellement moom mooy leader écurie ba mm. nekk koo xam ne vraiment am na personnalité te itam mat na di leader mm. donte jeune la waaye da nga koy xool ak kàddoom ak i doxam xam ne kii nit bu personnalité la mm. ku mel noonu nag su nekkee fenn bu ànd ak ay xale yaakaar naa ni dinañ war a mën a def résultat bu mel nii lii nag mooy sport di leen ci félicité ah di leen wax ne rek affaire moom amul secret quoi liggéey la sérieux ak teg ko ci yoon ànd ak ñi nga war a àndal mm. soo ko defee rek résultat bi pour man mm. bu yàggee dana positif ak lu metti metti d'accord Babacar information yu information waa démb demoon nañ fële ca golf. Mhm. ngénte Sa Thiès. waaaa Sa Thiès moo doon ngénte démb. Mhm. Euh, defe naa ne démb ca golf la woon. ah muy am yàlla may ko bebe muy góor ñu ñaanal yàlla bébé bu gudd fan. amiin te am nday ak baay barkeel ba ay teral ay way juróom ëllëg loolu lañ koy ñaanal parce tamit loolu mooy àddina. mu jël doom ja tudde ko magam muy Balla Balla itam ci suñu micro mu xamal ne daal. xolam sedd na ci loolu trop. te effectivement ni ma la waxee sànq rek. ami ku la tudde doom bañu la ku la yóbbu may jabar bañu la yooyu yëpp defe naa nag su amee la ko waral mooy ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay mhm. defe naa kon la Sa Thiès def démb moom wax dëgg yàlla mhm. ah lu war a am la tey lu rafet la mhm. kon dañ koy magnifier rek di ñaan euh, euh, yàlla daal lépp nekk ci ay mucc ki xew rek parce que àddina noonu la demee daal lu rafet la daal lu rafet la macha allah dëgg loo xam ne caméra bi jëlu ko man dañ ma koo nettali laax bi démb waaw gis nañ la ngay xëccoo dañ koo nettali dañ ma koo Ah, fekkee wu ma ko Cheikh doon na wax ne. xolli ah. <laughs> leen seen nopp yi tefal seen bët yi. Uh-huh. xam nga loolu mooy lan. ma bàyyi ba gis doog a wax. ah bàyyi laata ko doon wax de yal na yàlla yokk ay leeram. parce que mm. des fois. ñu mm-hmm. nit dina la net li dana ca yokk wala mu wàññi ci. te muy dëgg waaye am nga ne jàpp gomis mais. <laughs> am na yére bi mu sol couleur bi nii la mel boo ko waxee kenn du ko wéen. te muy dëgg la wax loolu ndax man laax ba lekk ma ci lu bëri. lekkoo waaye lekk nga waaye lekk nga ah, ñam na ah bien sûr. ndax mu ngi dëggay faaw bu bàkkeelu ci. <laughs> kon baax na <laughs> Babacar lan ngay tàggatoo. waaw xanaa sant yàlla jëli ci rëdd bi. Ah, sant Modou Kara ca heure di ca rue 22. angal gisat ca Medina mhm. moom a ñawal. moo jaar fii waaw borom bu njaan maa ngi koy bëgge bu baax a baax di ci profité di nuyu waa ànd jàppoo si ngépp ñoom sama kër su njàmme ak ñoom démb si njàmme nag xam naa ne xaw ma dalaa bëgg a def ñaareel xaw chaque jour mu ne ma Ami Diouf njàmme amee ngi nii coach si Ndiame maa ngi leen di bëgg ñoom ànd jàpp aussi ñoom dem ñoom Zeynabou ñoom ñëpp ah nekk rek maa ngi lay bëgg ñoom du ma fàtte kenn mhm. parce que ñooy bokk di sport par exemple ñuy tàggat yaram te muy diggante yu neexa neexa ne di nuyu ñëpp ñoom Basirou mhm. ñoom ñoom ñëpp maa leen di bëgg di ñaan Sénégal jàmm feebar yi ñu na ko mhm. fi yàlla dàqe yóbbul ñu ko ci àll yàlla la ñuy ñaan parce que nii moom il est l'heure ñu gën a takku gën a taxawaat yaakaar naa ne gën a fonk masque yi tey raxasu te itam ñaan yàlla mbir mhm. yu jóge fii di la kontaane di nuyu soppe yëpp di ñaanal ñëpp di jàmm nuyu mhm. gomis mhm. mais Babacar sa non sa robu kooku góor yàlla ñaan robu ndaw si <laughs> ah góor a góor a nga bopp <laughs> kon baax na Babacar voilà mbokk téléspectateurs yi fii la ñuy daal di yem ak yéen rek di leen jox dig daje ëllëg incha allah. kon nag mbokk yi comme ni ngeen ko xamee rek ku ne xam na ne boobu ba tey yéen a ngi laaj combat Reug Reug bi kañ koy teg tey nag bu soobee yàlla moom di ngeen ko gis ci suufu vidéo refi bii ngeen gis ma defal leen ko bu ngeen xoolee ci suuf vidéo bi rek lien ba fa nekk rek moom ngeen di cliquer maanaam moom ngeen di bës boo ko bësee rek da dugg ci biir mën a seetaan diggante Reug Reug ak ki nga xam ne moom mooy Alain Ngalani di nga xam combat bi naka la ko Reug Reug gagné attention Jackson daanu